mu mel ni ci sunu jataay bi daanu dikk ci saar wi nga xam ni mooy suuratul humaza suuratul humaza saar la woo xam ni boo dee xool ci nañu toftalee kaamil bi mi ngi tollu ci limu téeméer ak ñeent 104 temerelu sar ak ñent suratul humaza neena makki yala ma nga bokk ya saar ya nga xam ni makka lañu wàcc mu ne min maqasidi sura mu bokk ci jubluwaay yi nga xam ni mooy jubluwaayi saar wi التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال سالا وخمني بوكنا تي اي جبل وايام داي واتانديكو لو دي يج سابوتي نياغا خمني نيوي ويغمي ngir naxu goo xam ni nit ki alalam ju bari da koy nax maanaam ka nga xam ni moom poñetu àdduna alal ju bari moom la jël def ko mu doon misaan maanaam balance nattuwaay ba moom lay màndaxee moom lay natte moom lay peesee bu ko defee wëy yi ñoom nga xam ni seen yitte mooy seen ngëm ñooña mu leen di yéjja ka di leen sabootee ka di leen doya di la ka tuutal ak yu ni demee kon saar yi dafa dikk di wattandikuloo nit ñi ca loolee mu ne at tafsir pirimi بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم اك مبغل مبغل مترلول نيل ñooñee nga xam ni dañoo bari lu ñuy jëw ak a yéjj nit ñi di leen jàmm ma maanaam di jëf jëfi yéjj walla di ko wax waaw wala di ko wax maanaam ci ay xeeti ŋóobi ma ngoog ay ŋóobeeki ñela joog raga joog piis ak lamsalak yooyu ay jëf la yoo xam ni da gis ne jëf la yoo xam ni lu ci bari dañ koy def jublu ca yëjji nit sabooti nit jam nit wala yu ni demee loolu ci jëf dana nekk yi ci wax ci ay kàddu ay kàddu yëj ba ay kàddu yoo xam ni yaa ngi koy jam nit ki di ko teg ci deram ak yu nu demee ko doyadil ko tuutal ko jëw di ko xas ak yu ni demee mu ne kon mbugal mu tar ñeel na ña nga xam ni ñoom dañoo bari lu ñuy def loolee wala lu ñuy def yooyee alladi jamaa maalan wa addadah alladi hammuhu jamu lmaal wa ixsaauhu la hamma lahu gayra dalik mu ne mu doon nag koo xam ni moom yittim yépp mooy dajale alal ma ngoog dajale alal di waññi amul beneen yitte bu dul loolu ba jàpp na ni moom la nga xam ni mooy teddange wala sag ci alal la nekk ba tax kon mu xeet ña nga xam ni donte amuñu alal sax waaye am nañ diina di leen tuutal di leen móobi di leen jëw di yàq seen der di leen doyal gis nga lii dalay won yow ci sa bopp yow ci sa bopp lu bari ci say jëf mën nga cee màndaxe sa bopp mën nga cee àtte sa bopp mën nga cee juger sa bopp li la borom bi tabaraka wa jox ci jox-joxu xéewal alalu àdduna loo cee def loo cay def ndax lu baax nga cee def fekk ñu aajowoo jàkka nga tabaxal leen jàkka ñu aajowoo taxawal daara nga dimbale leen ñu aajowoo dundal dundal daara taxawal daara dundal daara taxawal daara mën naa doon jëmmi tabax ba waaye ña fay ne nag lañ fay taxawee loolu moom daa laaj dundal gis nga ak yu ni demee ndax sa alal ci loola la jëm wala boog yow sa alal ci li mu jëm mooy ah kii dinaa ko dóor sa sama loxo du ko laal bu ko defee génnee ay enveloppe dugg génn yéeg wàcc ñu jàpp koo ko tëj kaso fekk ci ay tuuma kepp la walla boog sax bu fekkente ne réeroo am na ca nañ ko jaare du noona ma ndax tey dangay gis mbir yoo xamante ni nii yu doy waar la doy waar la loo xam ni kii ak kële ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk lu ñu leen di toppe ay kële moom ñoo ngi ko jël tëj kee moom mu ngay génn di doxi soxla gis nga loolu allahul mustaan mu ne kon yaxsabu anna maalahu axlada yadunnu anna maalahu alladi jamaahu sayunjihi min almawti fa yabqa xaalidan fi lxayaati dunya mu ne ma ngay yaakaar eey waaw di foog nag di yaakaar ne alalam joojee da koy béelal maanaam da koy muccal ci dee mu daldi fi dess bil fi fi ci dundu aduna gi da nga yaakaar ne alal joji nga yor mom nga xamni sorte de pouvoir sorte de pouvoir la ndax mën nga ci jënd nguru gis nga waye yow jël nga ko wëlbeuti ko def ko lo xamni ci ngay yàq deru gor yi dem ci waa ji mu ne journaliste la journaliste nee loolu lay liggéey journaliste journaliste bi yëpp mooy la peinture deru gor yi bu ko defee ñu jox la xaalis ngay wax ci gor loo xam ni dara wóoru walla nga dem di luñ ay way juróom fa ñu tëdd ci biir bàmmeel ngay njéqi di génne seen yax di leen wuññi di wax ci ñoom hmm? ndax lan yaa fay xaalis nga alal am naa ci kër am naa ci ay oto am naa ci nag ci lan nga ko amee ci yàq deru bor hmm? wax lu dul dëgg ci ay chantage hmm? ne da ngaa bokk ci maison de presse boo xam ne dafa am doole bu ko defee nga dem ci yenn président yi ne leen waaw boo ma joxalee nàngam de wala nga defal ma ay facilitation wu nàngam dinaa la defal image bu rafet ci sunuy journal yi génn dañ jox la xaalis waaw nga commencé nag di ko peinture peinture bu rafet journaliste métier lan la wax leen ko nit ñi wax leen nit ñi métier lan la day fi tey da ngay gis ay xeetu métier yoo xamante ni xeetu liggéey yoo xamante ni nun nii ñoo ko tuddee liggéey waaw mais am na ñoo xam tey ku leen yeewoon pëkk-pëkk ne ko xeetu liggéey bu mel nii am na subhanallah moo tax ay tëkku yu méttee métti da cee ñëw ay tëkku yu metti gis nga yooyu nag wala gis nga gaañ jàng diina des nañ cee sawar de parce que bugg ñoo dajeek nusuus yu mel noonu texte yooyu xadis yooyu aaya yooyu bugg ñoo dajeeg moom parce que kat aaya yu bu egsee boo defoon ndànk salaire bu bloqué wu waaw waa léegi ba ngoog hmm? joo xam ni day xëy kàcc kàcc woo xamante ni nii tablughul afaq waaye kàcci ka wasaaro kooku lan moo koy xaal dugal dugal mu metti hmm? kon moom ma ngay yaakaar ne alalam joojee daal da koy teree dee bu ko defee mu daal di fi biyeel sax fii منك لا لينبذن في الحطمة ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل لا يطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كلما طرح فيها للشدة بأسها من ديت مي كادوك جاج واجا موم ماغا مريني على ميري ني مريب موم موي bu yoree alal rek daanaka moom dootul déet daf fii sax mu ne déet mbir ya di demee na mu koy fooge na mu koy njorte waaw moom waajoojee nga xamante ni nii ku ñàkk xam la maanaam ku xamadi la xamadi mooy ku ñàkk xam kii dafa xamadi dafa ñàkk xam yi dafa doyadi yi dafa woyadi gis nga moom jaahil boobee des na ko tàbbal sànni ko ca biir jahannama mu doon safara soo xamante ni nii nag safara soo xam ni lépp luñ fa sànni rek da koy tojal koy tojal ngir tarayam waaw safara soo xam ni dafa ànd ak sànj ànd ak doole waaw lépp lu fa sànni rek noonu la koy def wa ma adraka mal xutama wa ma alamaka ayuha rasul ma hadihi النار التي تحطم كلما طرح فيها mu ne ko yow yonent bi lan moo la xamal safara soosee nga xam ni lépp luñ fa dugal mu tojat ko écraser ko consumer ko naarullahi almuqada innaha naarullahi almustaira mu ne ko safara soosee nag mooy safaras borom bi jalla wa ala safara soose nga xam ni borom bi jalla wa ala mooy ka ko taal ma ngoog safara soose borom bi jalla wa ala mooy katal taal safara soose allati tattaliu ala al allati tanfuzu min ajsaami nnaas ila qulubihim mu ne ko safara soosee safara safara la soo xam ni day àllawtiku bawoo ci jëmm yi walla jaar ci jëmm yi jëm ca xol waaw day wéy di lakk di dem mumsafara sosai innaha alaihim muqsada innaha ala almu'adhabina fiha mughlaqa mune safara sosai ñeñ fa dugal di leen bugal de day tëju seen kaw mughlaqa day tëju seen kaw bor bu ne rek ma ngoog safara sa ëmb leen fi amadin mumaddada bi amadin mumaddadatin tawilatin xatta la yaxruju minha ci ay keno nag yoo xamante ni nii des leen tàllal yu gudd ba ngoog yoo xam ni ñoo fay ne ca safara soosee nga xamne ne loola doy dox seen diggante génn duñu ñu génn duñu ñu jaar ci buntu ye génn duñu am fenn fuñu ñu jaar génn ndax kenu yu reuy yu gudd yo yeñ ci def muy mbugal mo xamanteni ni mbugal mu tar la mu ne min fawaidi al ayat tahrimul al hamzi wal lamz fi nas bokk na ci les di jariñoo ci laaya yi tere te rek araamal goo xamante ni nii araamal nañ ko ay ngóobeeki regajooki yu nu demee bangoo nga xam ni jubluwaay ba mooy lan yëj ay nit saboote ay nit moo xam nag ci jëf la wala ci wax loole bokk na ci li nga xamante ni nii lu ñu tere la waaw rawatina nag nga koy jëmale ci ñi nga xam ni way gëm rawatina ci ñi nga xamante ni nii way gëm waaye rawatina ci ñi nga xamante ni nii nag ñoom dañoo bokk ca ña nga xam ni borom bi jàlla waala da leen a defal leen tawfiq ñuy taxawu umma bi di leen jëriñ yu demee ni ko yonante yi mangoog ak ña nga xam ni borom bi jalla wala moo leen tànn mangoog def leen ñu doon ña donn yonante ya kon gis nga doxalin la woo xamante ni nii julit bi da ko war a da ko war a moytu da ko war a di yëj ay julit di leen saboote di leen di leen jéem a toroxal di leen jéem a tuutal waaw te dañoo toll jamono boo xamante ni nii nag wax dëgg daanaka yu demee nii ku ciy dox da ngay gis ñu lay tàccu di la appurie waaw di la donte da nga koy def sax pour reetaan loo nit ñi xool gaañi ci seen film yeeg seen théâtre yeeg yooyee da ngay gis ciy def yoo xamante ni nii lu jëm ci doyadil way gëm yi la doyadil diina yàlla na ci borom bi tabaraka wa taala musal bu ko defee nu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq defal leen defal nu taysir defal leen ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi